waaw salaamaaleykum ñoo ngi fii en direct ci stade Lat Dior de Thiès ànd ak euh, waa équipe nationale du Sénégal ak euh, seen préparation match bi nga xam te ni moom la ñuy amal le 23 avec euh, l'équipe du Madagascar waaw ñu ngi fii ak benn joueur bu ñuy wax Serigne Serigne noo gisee seen préparation match bi. waaw match bi préparé nañ ko comme ni ñu ko war a préparé def nañ lépp lu ci war waaw te aussi xool nañ terrain bi. waaw li gis daal dal na xel quoi mën na dinañ fi mën a jouer incha allah. dal na xel côté pelouse beeg euh, gradin yi ja wax nga ne daal euh, dal na xel. waaw waaw foogoon nañ ni sax du nu gaaw a recevoir fii ci Stade la Dior tey nag bu ñu fi recevoir sant yàlla bu baax xale yi ànd nañu def entraînement fii bu benn du ñaar kon am nañu yaakaar ni ndam rek lañu am. ah am nañu yaakaar ne ndam rek la soxla te moom la ñu war a am euh, ñaata bu nga. laaj sa équipe. waaw kon ni ko capitaine bi waxee rek jàpp na ni trois bi dinañ ko am. deux un ñe deux ñun. un ah waaw yàlla na yàlla nangu ñaani. moo gisee état wu terrain bi ak stade Lat Dior actuellement. waa état terrain bi damay remercier d' abord comprendre ñi nga xam ni ñoom ñoo joxe initiative bi ba def ko affaire yi parce que lii dafa manqué woon Thiès franchement doon na lu nice quoi xam nga euh, nañu doolee góorgóorlu ndax lii mooy développé am réew xam nga équipe nationale lu toll ni équipe nationale ñëw di football si Thiès comprendre mu doon préparation bu rëy loolu nice na quoi. Euh, ba léegi tamit ñu nekk ak yow des ak yow euh, le capitaine euh, ma lay laaj Thiès naka lañuy ñuy accueillir match bi contre Madagascar ndax ñëpp yëg nañ ko waaw wala déet. waaw mais information moom daw na parce que. accueillir moom ak ni ñu koy defee mënta weesu tamit ñu ne sax euh, journaliste yi comme yéen amuwoo leen noonu euh, place bu ngeen mën a toog pour euh, mën a def seen liggéey ni mu waree comprendre kon loolu moom information bi daw na ko Stade Lat Dior ni mu meloon ak léegi nii y a un grand changement xam nga am na changement quoi par rapport ak fii ni mu meloon ak léegi nii boo xoolee léegi ni mu mel. dëgg la dëgg la ñoo ngi lay jaajëfal léegi looy wax sa supporters yi di leen waajal bii wala déet. non bu ñëwee dinañ fekk dinañ fekk nañ leen dugalal ñaari bii kay incha allah. Ah. parce que état terrain bi boo xoolee di nga xam ni fii nii moom xam nga dinañ fi mën a dugal ñaari bii yu baax. Mountaga noo gisee seen préparation match bi. nañ fi xool nañ gazon yi yëpp normal na incha allah fii moom dinañ fi mën a football normal. na gis nañ fi moom fa laaw yaayam. Ah, baax na euh, naka nga gisee équipe Madagascar bi. incha allah bu ñu ñëwee fii ndaj ngeen daj lu metti ah dinañ daj lu metti kon baax na <laughs> waaw dañu gis euh, par rapport ak échauffement bi gisuñu ci le joueur le chouchou des sénégalais ki nga xamante ni moom la ñëpp di xaar ki nga xamante ni moom la Thiès waa yëpp di xaar muy Sadio Mané de Liverpool lu tax gisuñu ko tey. waaw mais Sadio xam nga fan yi match mu comprendre match yi mu nekkoon moom moo xawoon doy waar moo tax ñu ne ko pour mu noppalu pour le l'instant mais gars yi moom bu ñu tiit bu ñu rafle yaa ngi dégg lu toll ni équipe nationale bu Sénégal c'est la première fois ñu joué ko fii si stade bi nga xam mooy stade Lat Dior comprendre Thiès li may bëgg mooy na ñëpp génn ñëw seetaan ci seeni doom comprendre seen i nawle comprendre ñi nga xam ni ñooy doomu sénégalais yi nañ ñëw ñëpp seetaan ci. Euh, ba léegi ak yow capitaine waa lan nga leen di wax. waaw waa Thiès mooy li ma leen wax rek parce que tamit euh, lii lu rëy la du lu ndaw xam nga équipe nationale bu Sénégal comprendre fii. wàcc bi pour jouer wàccees na ñëpp génn bu kenn des. Mhm. bu kenn kenn des. dëgg la capitaine ba léegi tamit euh, ñoo ngi gis euh, gars yi ñoo ngi ci euh, dernier réglage yu stade bi. Mhm. ñoo ngi gis ñoo ngi defar tribune yi di dooraat peinture yi di raax ak raaxaat pour la bonne marche de cette match nan nga leen di wax ñoom. waaw parce que affaire yi moom jàpp la rek parce que ni ko kii daan waxee quoi suñu maam maam Abdou Aziz Dabakh nee bu dee sa ëmb dafa ne si biir gaal gi sama ëmb ne si ëmb keneen ne si nañ ñaan yàlla gaal gi bañ a dig waaw moo tax tamit gars yi ñoom ku si ne yaa ngi def sa rôle li nga mën